ko keneen mais da ngay gis ko lal taabalam dajale ci lu doon lu doon ni lekk filmer ko tasaare yonent bi daf daan wax ni sallallahu alayhi wa sallam bu la yàlla dénkee ginaar boo ko toggee yàpp wi nga xamante ni mënoo ko partager soos ba ñeex ma tibb ci sa dëkkandoo loolu séeréer du duñ ko def de. Ah, ok bul xaar séeréer séeréer la <laughs> maa ngi ñëwaat yow léegi ñu ñu ñu avancé ah, tuuti. parce que dañuy séeréer la <laughs> euh, tey si toutefois que. Hmm, euh, euh, cette motion de censure la mu indi indi jafe-jafe est-ce que on peut s'attendre wala on tend vers hmm, dissolution li nga xamante moom moo di assemblée nationale parce que possibilité la également. non man moom li ma gëm si motion de censure bi bu dee motion de censure dina am. wóoruma dina am d'abord il faut ñu xool ndax dina am. ginnaaw motion de censure bu amee est-ce que dina jàll. il faut ñu dafa am ay ay étapes yoo xam ne foog foog foog ñu apprécier bu dee am na donc il faut que mu am d'abord ba pare ba ñu xam ne am na. bu amee est-ce que dina jàll. ginnaaw bu jàllee nag en ce moment-là naturellement. on va vers un blocage de l'action gouvernementale. te action gouvernementale nag bu ñu amee fii benn assemblée boo xam ne day bloquer action gouvernementale. yoon tamit na na yoon mayee. assemblée mën a génnee motion. noonu la yoon mayee président de la république. au bout d'un mandat de ah deux ans ah mu mettre fin nest pas mu dissoudre li nga xamante ne mooy assemblée nationale léegi nag dama jàpp ne euh, ba ñu ne euh, député yi bi ma Macky Sall yóbbu fa projet de loi ne leen nañu soppi loi bi ñuy tasee assemblée mooy mën nañ tas assemblée à n'importe quel moment mhm. dañoo bañ ils ont dit que ñoom ñoo bañ parce que dañu assemblée kenn mënu ko tas avant deux ans mhm. ñoom ñu mooy j'espère qu'ils voudront bien que législature bi dem jusqu'au bout mhm. législature bi ñu nekk nii quatorzième législature je pense. septembre lay lay lay am lay am deux ans mais gëm naa ne bëgg nañ motal seen cinq ans. dem ba cinq ans yi jeex ñu doog a dem yeneen élection falaat yeneen député peut-être mais tout dépendra aussi de posture bi ñuy am. jeex na bu dee ils vont bloquer l'action gouvernementale parce que aussi mënuñu. Mhm. di gouverner parce que après on va pas on va pas fonctionner parce que loi yi. assemblée moo koy voté mm-hmm. yenn décision yi boo ko boo ko bëggee jëlit foog mu dem assemblée nationale action gouvernementale bi tamit assemblée moo koy moo koy euh, saytu mm-hmm. donc yooyu yëpp am na justice bi pour mu dox aussi il faut que des lois soient légiférées au niveau de l'assemblée mm-hmm. ñu mën ko dugal ci suñu code de procédure pénale et cetera mu mën a ñu justice bi le pouvoir judiciaire di ci mën a sukkandiku di rendre ay décisions donc tout l'arsenal sera bloqué te loolu nag mënuñu ko dund pendant trois ans encore loolu je pense qu'on a des députés tant bien même parfois on n'est pas d'accord ak lépp lu ñu def mm-hmm. parce que am na ay lois ñu fa voté yoo xamante on n'est d'accord y a eu des comportements belliqueux mm-hmm. yu am assemblée nationale dañ koy rëccu ay xeex ay saagante ay waxante yeneen te alors que mënoon nañu lijjanti mbir mi ci yeneen façon de façon beaucoup plus élégante mm-hmm. par la force des arguments mais malheureusement loolu amul mais le dernier sursaut toujours man dama ko gëm ci doomu aadama parce que le conseil constitutionnel nous a montré qu'il était conséquence demoon nañ ba ñu ñëpp dañoo suñu yaakaar dafa bi ñu déggee Mamadou Badio Camara dañoo ne on dañoo ne saawaay ñun moom bu yeboon nañu xam ne yàqu nañ euh. léegi nag président Mamadou Badio kamara ak i ñooñam ñoom Cheikh Ndiaye mhm. ak euh, Cheikh Diagne Coulibaly ak ñeneen mhm. ñoom ñoo jël ñoo sauvé Sénégal bi ñu xamee ne réew maa ngi basculé ils ont dit quand même il nous faut un sursaut un patriotique mhm. ñu teg ko si ay tex jubbanti parce que bu ñu dafa doonoon président Macky Sall du ma sa jàpp dal donc élection sax du am. Mm. donc tey man gëm naa ne aussi on peut avoir une assemblée nationale bi nga xamante nii moom tamit mën na am un sursaut d'orgueil républicaine taxaw mhm. n'est-ce pas jël décision yi war ca ba mu waree mhm. pour action gouvernementale mën a continuer parce que ñun encore une fois ni ko ñoom président Ousmane Sonko waxee ak euh, président Bassirou Diomaye nee na ñu ñoom dañ leen yàkkamti leen mhm. ñun Sénégalais dañ leen yàkkamti dañ leen votel pour na mbir yi changer dañ leen votel pour ñu attaquer la vie chère dañ leen votel pour ñu attaquer les difficultés yi nga xamante ne ñu ngi koy retrouver dans la santé les euh, bi toujours en grève ñëpp a ngi ñaxtu ci dëkk bi donc ñu soxla n'est-ce pas des décisions rapides yi nga xamante ni day permettre ñu joyante ko les institutions budgétivores et autres aussi soxla nañu n'est-ce ñu xoolaat n'est-ce pas le mode de fonctionnement aussi euh, train de vie bi nga xamante ni mu ngi koy moo moo ko am mm-hmm. instant bi ñu xool nan la ñuy alléger un peu les souffrances des Sénégalais dee nag am na ku ñu dem foofu nag naturellement non, je pense que le président Macky le président Bassirou Diomaye Faye va prendre toutes ses ah responsabilités ah au soir du 31 euh, juillet nga xamante ni euh, comment août parce que ñoom septembre la ñuy jeexal donc en septembre il va prendre toutes ses responsabilités par rapport à ça ça veut qu'on va aller vers une nouvelle élection législative mm-hmm. euh, pour jéem a xool ñan la ñuy falaat encore pour nos députés mm-hmm. mais ils ont vraiment un rendez avec l'histoire ñu xool léegi nag motion de censure mën na condition aussi mu doon une motion de censure motivée mm-hmm. bu dee c'est motivé mais je ne pense pas que dina dem doon un amateur. Mm-hmm. dem au niveau de la l'Assemblée nationale di fa proposer la nga xamante ni day xam ne ni baaxul ci réew mi et député yi dañ ko a contrer je pense pas je pense qu'il va travailler <laughs> nest pas sa déclaration moo que les experts qui gravitent autour ba nga xamante ni demee assemblée day doon li xam ne boo ko tegee lu dëgër lay doon fondement bi day dëgër ba nga xamante nit ñi dinañ ci mën a adhérer les députés vont adhérer et nous le peuple sénégalais encore une fois on sera arbitre dinañu <laughs> décisions yi les attentes sont sont nombreux mm-hmm. li nga xamante moom la ñuy xaar ci gouvernement bu bu yees bi euh, foo ko natt euh, romb na fa mm-hmm. euh, tey ñu ngi ñu ngi wax coowal lu jëm ci li nga xamante ni moom mooy rapport yi nga xamante ni war nañ ko teg ci table bi mm-hmm. pour réduction des des des comptes est-ce ne tey nar na indi peut-être benn yéexantal wala benn jiixi jaxa ci taxawaay bi nga xamante ni war nañ ko taxawee ak urgence yi nga xamante ni sénégalais ñu ngi koy xaar ci est-ce que est que xam nga ne am na ñuy dem di yoxasu di fay ah bon maam yow yow yow yi ngay indi fii nii. est-ce que est-ce que yow bokkoo ci lanceur d'alerte yi. non xam nga xam nga man ay reetaan daf may jàpp des fois des fois damay dégg damay xëy di déglu wala mu dugg biir Facebook ak yooyu wala réseaux sociaux yi mais damay ree parce eh, li ñuy wax ak li nekk du benn xam nga kiy jóg gis ne bon luubal na alalu askan wi balaa OFNAC di ko woo wala keneen di ko woo gis nga li dal Mame Mbaye moo lay dal da ngay taxaw wax dëgg gi la cay des nag bi bi président déclaré rang bi keroog bi mu defee discours am wax ni képp koo xamante ni ñëw nga déclaré wala nga ñëw boole am na lu ñu warloog yow keroog bañ nga xëyee rang bi gudd na de sëñ bi rang bi doon ñëw di kiis c'est que du ñu guddal ay ay secret d'état di ko di ko di ko bàyyi muy dem mais li ma la mën a wax mooy ni coow li li muy bëri bëri yëpp ne seen xel daal dara du ci yeex li war a dox mu ngi dox parce que xam nga buñ ne dana jaxase tey publier leen rapport bi mais publier nañ quelque personne mu des ñeneen est-ce que ñooñu ñu publier tey fitna yeewu na amul benn fitna bu yeewu. mais toppaguñ ci kenn. non dafa ndànk déggagoo ñu ne la topp nañ kenn xam nga topp gi du Ousmane Sonko premier ministre wala Diomaye président de la République moo naan e Cheikh demal nga toppal ma diw déedéet loolu amatul. yoon mooy def lii boo seetee nii ni président di doxe ak euh, le premier ministre da ngay xam ni léegi séparation yi leer na naññ ne. président am na loo xamante ni dugalatu ci loxoom premier ministre moo géré nan la ñuy gouverner yooyu mu ngi koy dox. dégg naa sax Abdou Mbow di ci wax yeneen xom astafurlah euh, kii Mbaye Ababacar mbay la xawma suma jumul président Diomaye ma nga ci ruq ba mu nekk la muy def lay def li ma la mën a waxal mooy ni ñi ñuy jot a génne muy jóob si muy mu kële jàllo nu ñu koy tuddee ti ki dëkk Louga Mamadou Diallo ñooñu fi mu ne nii am na leneen lu ñu tal. Mm-hmm. lu dul naan dañuy yëngal wala dañuy déconner xam nga fu ñuy yëngale ñoom ñu ngi xaar ñu indi leen seen convocation neen dem leen wuyu ngeen justifier lii ñu leen tegal nan la demee beneen bi ci des xañ na boog ña ngay dem di tàllal loxo ñu leen di ñaanal pour cooli mën a fay mais li ma la mën a wax mënuñu lu yàlla bindul ci Ousmane Sonko mënuñu lu yàlla bindul ci Diomaye mm-hmm. c'est moo dem ba të président Macky Sall dem ba të ñi ko fi ñi ko fi doon galgal ñëpp tey yanu benn affaire ne da koy doxal te ko ci dëgg mhm. képp koo xamante luubal nga alalu askan wi mhm. da ko indi te loolu nag la ñuy séntu. mais Imaam xam nga lan lañ ciy bañ mu nekk chasse aux sorcières comme ni ko gouvernement bi fi nekkoon defoon parce que gis nañu. liste non non vingt nga xamante ni s'il te plaît s'il te plaît. attends attends baal ma terminer sama sama question baal ma terminer baal ma terminer. xam ñi fi ñi fi ñi fi ñi fi nekkoon. sénégalais yu bëri euh, laajoon nañ ñu def li nga xamante moo di réduction des comptes gis nañ taxawaay bi nga xamante ni état boobu amoon nañ ko ci ba am ñoo xamante ni ciblé woon nañ leen mhm. ñu dem ba au finish nee nañ ñu am na ci ay kenn lañ ci topp ñenn ñi am na lu luñ ci récupéré ba tey gisuñu li nga xamante ni récupéré nañ ko teguñu ko ci table bi sénégalais amuñu ci benn benn preuve est-ce que tey mhm. duñu dem ba également en un moment donné également gouvernement bu bi mën nañu am na ñoo xam ne ñëw nañ ci suuf comme ni nga ko waxee léegi joxe nañu mhm. te te kenn mënul am preuve ne ñooñu joxe nañu parce que mhm. euh, teguñ ko ci table bi publié wuñ ko même su fekkente ne am na loo xam ne ni secret d'état la également sénégalais ils ont besoin de savoir également loolu loolu daal Macky Sall daf ni woon aji teg suma du teg dara ci conc dana jaar yoon ñi ñu épinglé danañu dem ci yoon yoon leeral ku ci remboursé da nga remboursé kuñ ci tëj ci kaso bi danañ la tëj ci kaso ñu teg ko ci ci ci biti ma ne la da nga may déglu ma li ma lay wax bee boo jàpp ko kuñ ciy tëj kaso danañ la tëj kaso nga remboursé danañ la tëj kaso nga ñàkk a remboursé danañ la tëj kaso te gis nga su boobaa jomaay du ci impliqué wu président Ousmane Sonko du ci impliqué wu benn ministre du ci impliqué wu te loolu la sénégalais yi laaj Sénégalais yi dañu bëggul ñuy xëy suba euh, euh, Ousmane ko naan a ah, diw day euh, cent milliards yi mu jëloon bu dul woon ak Jomaay kon danañ ko tëj kaso mais Jomaay moo ci dawal ndigal moo ci dawal sutura wala mu ne bu dul woon xalif général des Mourides wala bu dul woon xalif général de Tidiane loolu jeex na sëñ bi loolu c'est fini alhamdulillahi rabbil alamin li fi des ñoom xam nañ ni c'est fini sax parce que ni mu doxee